félicité di leen ñaanal itam ci liggéey bi nga xam ne booba ba léegi tàmbali ngeen ko di ci jéem a nekkit di ci continuer muy liggéey bu am solo ci wàllu lislaam eh, tomb bi nga xam ne ci laa war a ubbee waxtaan wi ubbi rek laa koy tudd su ko defee li ci defee li ci des ab su ko defee suñ ubbee ba noppi su fekkee am na lu des ci waxtu lu am ci ay question yu man ko ci jëmale fii ba eh, xam naa une bi jot wala li ci des du bari tomb bi mu ngi jëm ci liggéeyu mbooloo ci lislaam liggéeyu mbooloo ci lislaam mooy liggéey boo xam ne dafa tegu ci kaw groupe nekkul liggéeyu par kenn kenn nan la ko lislaam gisee ak ak daganam ak ñàkk a daganam ci wàllu jigéen ak ci wàllu góor sax fan la tollu ak it fekkee dagan na liggéey bu mel noonu ci yan anam lay dagane ak yan mbir mooy yi nga xam ne ku bëgg a liggéey liggéeyu mbooloo war nga koo wattandiku ndax liggéey bi mën a tegu ci lislaam ba noppi mën a jariñ ak itam gannaaw boo xamee ne loolu am na ba noppi yan mooy yi nga xam ne su amee ci liggéeyu mbooloo liggéey boobu dana jaar yoon liñ ci séentu ci njariñ dana ci mën a am ci àdduna ak ci àllaaxira yooyu tomb defe naa suñ ci noppee leneen la cay des lu doon lu am solo xëy na ay proposition rek lay doon yu ndaw yoo xam ne danañ ko teg ci seen loxo ngeen bàyyi ko xel ci liggéeyu mbooloo bi ngeen di liggéey diine lislaam diine la joo xam ne dafay soññee ci dimbalante ak jàppaloo moo tax sunu borom tabaraka wa taala di wax ne wa taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala nee na ngeen di dimbalante ci lépp lu baax albir buñ ko waxee baatu alquran la boo xam ne arab xamu ko woon lu jiitu alquran di ñëw muy albir waaye alquran moo ko indi muy firi nag lépp loo xam ne rek lu baax la loo xam ne borom bi tabaraka wa taala nee na baax na kooku day dugg ci biir biir moo xam daa jëm ci jaamu yàlla yi nga xam ne diggante jaam bi la ak boroomam wala mu jëm ci def lu rafet jëmale ko ci moroomi jullitam wala moroomi doomu aadamaam wala mu jëm ci sax joxe fi sabilillah jëm ci gis lu bon nga dox ba mu jëm ci gis lu baax nga dox ba mu yokku wala baax ne lu baax nekkul woon nga fexe ba mu nekk fa loolu yépp day dugg ci kàddu al borom bi tabaraka wa nag mu ne bir moomu muy def lu baax doonut loo xam ne mën naa mat ni mu war a mate lu dul jullit yi dañoo leen dimbalante ci moo tax mu ne wa taawanu dimbalante leen alal birri wa taqwa ngeen dimbalante ci lépp lu baax ak lépp loo xam ne dafay indi ak ragal yàlla mu ne ngeen wattoon di ko dimbal dimbalante nag ci loo xam ne lu baaxut la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay soññeem ci jullit yi bennoo am na fu mu waxee ne yadullahi ma aljamaa nee na loxob yàlla dafa ànd ak mbooloo loxob borom bi tabaraka wa taala ci kaw ndimbalam ci kaw ak dëgëralam ci kaw ak jàppaleem loolu mbooloo la àndal waaye àndut ak ak tàqalikoo ndax bu ñu waxee aljamaa lay safaan ba maanaam contraire ba mooy tàqaliko kon tàqaliko yàlla àndu ca waaye li mu ànd te teg ca loxoom loolu mooy ak bennoo ak booloo ànd di liggéey ànd di jëmale lislaam kanam te loolu dafa nekk ay principe yoo xam ne lislaam ci boppam noonu la tërale noonu la bëgg jullit yi mel noonu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na beneen xadiis daf ne masalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim wa taatufihim ka masali ljasadi alwaxid ida ashtaka minhu udwun tadaaca lahu sairu ljasadi bilxumma walsahar nee na misaalum jullit yi ñi gëm yàlla seen exemple nee na ci seenu bëggante ak seenu yërëmante ak seenu ñeewantente nee na dafa mel ni wenn yaram su fekkee am na benn cër ci yaram wi boo xam ne dafa feebar yaram wi yépp dañuy àndandoo feebar kon jullit noonu la war a mel wenn yaram la ndax kat da gis koo xam ne baaraamam rek mooy metti waaye bu nelaw jotee du nelaw ndax mettitu baaraam woowu kon amul benn cër boo xam ne dana am jàmm li feeg metit woowu demul ba daal su dalee yeneen cër yi ci def door am yar door am jàmm mën naa xëy sax du liggéey fekk tànk yi mën naa dox xel maa nga fa bët yaa ngay gis nopp yaa ngay dégg waaye du tax mu mën a xëy liggéey pour lan parce que baaraam bi day metti kon noonu la jullit yi mel su benn jullit nekkee ci problème wala mu nekk ci jafe-jafe wala mu nekk ci metit jullit yépp dañoo war a àndandoo yëg ne ñoom ñëpp a nekk ci métti kooku mooy principe général bi nga xam ne moom la lislaam tëral jullit yi ñu war ko dund te it ci loolu la ñuy amee doole suñ ko deful seen kàttan day dem suñu borom wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci beneen xadiis mu ne al muminu lil mumini kal bunyaan yashuddu baaduhu baax nee na jullit ak moroom ja dafa mel ne benn tabax boo xam ne dañuy dëgëralante maanaam boo jëloon ay birig yoo xam ne yu wow la nga séparer leen teg leen fële birig yooyu kenn ko ne birig dafay nekk boo ko jëloon tegale ko it nag te amut lu leen boole ba tey birig yooyu amaana bala ngaa tegale ba pare sax mu daam waaye nag bu li ñu tudde yaan ñëwee muy tabax bi nga xam ne moom lañ bi biñ tooyal ba mu tooy ñu teg ko ci kaw birig bi jël beneen bi tegaat ci jël beneen tegaat ci boo paree da ngay am miir bu taxaw boo xam ne bu dëgër këng la kon jullit yi su fekkee lislaam nekk ko wala diine kon dañoo war a tàqalikoo ndax mu ngi mel ne ay birig yoo xam ne ciment nekk gu fa waaye nag buñ demee nag ba pas-pasu lislaam ñëw nag ba boole leen kon dañu war a nekk benn bloc boo xam ne dañuy taxaw ci kanam lépp loo xam ne lu leen di défi lépp loo xam ne dafay yàq seen seen doxin noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam misaale moo tax bi mu koy misaal kii nettali xadis bi nee na wa shabbaka bayna asaabia nee na bi mu koy wax dafa jël baaraamam yi def ko nii mu ne jullit ak jullit nee na noonu la ñuy mel dañuy jàppalante ba dëggal liggéey ci mbooloo nag dafa laaj organisation ak teg ko ci yoon moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne su fekkee ñett ci yéen sax génn na ànd di tukki nee na jël leen kenn ki ngeen def ko amir maanaam mu jiite tukki boobu bu ba ngeen di dellusiwaat bu fekkee ñetti nit génn nañ ci tukki nee na tànn leen kenn ki ne ko yow kat yaay son amir ba ba ngeen di dellusiwaat mu nekk seen amir kon loolu organisation bu tegu ci yoon la boo xam ne daf lay jox ne jullit yi ci seen jëmmi bopp mënuñoo ñàkk njiit maanaam su njiit amul rek tasaaroo daal nay am parce que dara dut leen boole kon jaar nañu organiser seen bopp ba teg njiit ci seen kanam bu dee am mouvement wala mbooloo wala union comme tur buñ ko mën a joxit suñ dajee di liggéey ci wàllu mbooloo nañ fexe ba teg njiit ci seen kanam ànd nag di liggéey ak moom loolu danañ ci ñëw ci kanam tuuti pour leeral rek principe général wu l'islam dëgg dëgg dëgg ci mbooloo booy xool dafay mel ni lislaam sax lépp liggéeyu mbooloo la ndax julli bi ko borom bi tabaraka wa di santaane sant ko benn nit wala ñaar nit daf ne wa aqimu salaata wa atu zakat taxawal leen julli yéen ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wax ne julli mbooloo gëne na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar kon kooku liggéeyu mbooloo lay junj ne lu munta ñàkk la boo xoolee ci koor bi mu koy santaane daf ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla kon waxut ak kenn wala ñaar mais mbooloo mi lay waxal kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum kon farataal naa ci yéen koor kenn ku nekk gis jullit yépp nan la àndandoo di woorandoo mu nekk liggéeyu mbooloo en tant que jaamu yàlla di àndandoo di dogandoo ci bu jant bi sox ak bu weeru koor jeexee lépp loo xam ne lislaam daf koo santaane ci liggéey saxaaba yi mas koo dund ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbooloo lañu ko def bokk na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nga xam ne lim fa jëkk def ci ab travail muy ab liggéey boo xam ne bu am solo la mooy lu jëm ci tabax jàkkaam ji Abu Bakar Siddiq dafa génne xaalisam jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jënd terrain bi nga xam ne fi lañ koy tabax saxaaba yi jóg taxaw kenn ku nekk ñi mën a gas tàmbali di gas ñi nga xam ne dañoo mën a samp tàmbali samp ñi mën a tabax tàmbali tabax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax di jël ay birig di indi di joxe ñuy tabax kon ki kéeyu mbooloo la boo xam ne kenn ku nekk da nga participer def dara jàkka jaaraan taxaw ñi mën a génne xaalis génne xaalis ñi mën a liggéey seen kàttan liggéey seen mu daal di doon liggéey boo xam ne bu gaaw a gaaw la parce du liggéeyu kenn du liggéeyu ñaar mais liggéeyu mbooloo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne maa ngi leen di dénk ngeen ngeen booloo fa innama yakulu dibu min al ghanam al qaasiya na till gi nga xam ne dafa ñëw bëgg a jàpp jur gi muy xar yi wala bëy yi du fekk ñu guruboo rek mu ñëw song leen ci biir waaye dafa leen di nax ba benn feddiku ba beru rek mu dem dàq ko ba jot ko daal di koy jàpp boo ko xoolee ci yenn documentaire yi nga xam ne dañ koy wone léeg-léeg nga gis mala yu mag yu bare bare yu dajaloo gaynde ñëw wala bukki wala dara bëgg cee jàpp du jekki-jekki rek song leen fekk mbooloo nañ waaye def leen di nax benn par benn benn par benn di xaar ba benn beru rek ñu doo song ko moom dong daal di dal ci kaw parce que suñ bennoon ñu ngi doole te it même suñu amul doole sax bennoo bi nekk benn group dafay raglu maanaam day tiitloo ab noonu ñu naan ah ñii kat moom laal leen wóoruwut parce que ñu toll koy bu def ndànk ci ñoom mais suñ duggee ci biir ba gis ne àndandoo wuñ ne kii jëm na fële kii jëm fële day daal di mën a daal seen kaw kon seytaane noonu lay dale ci kaw jullit yi noonu leen di songe boo ko xoolee sax jullit bi nga xam ne euh, dafa xam ci boppam ak néew doole ci wàllu muñ ay bànneexi bakkan ak ay caaxaan ak yu tegul fenn ñaare fi ko loola di jekkoo mooy koo xam ne dafa wéet moom dong su wéetee moom dong ay xalaat dikkal ko ay affaire dikkal ko foofu la ko seytaane di ko waaye nag su nekkee ci biir nit ñi fu mu toll fu ne di waxtaan ak nit ñi di dugg ak ñoom di génn du nangoo wéet kooku seytaan yi du ko mënal dara kon li yonente bi sallallahu ko wax ñu leer nañ liggéeyu mbooloo nag boo gisee mu am importance dafa am yu ko waral moo di eh, mbooloo bu dee liggéey loola mooy doon liggéey bi gën a mat ndax nit ki ak lu mu am am xel ak lu mu muus muus ak lu mu bari bari ay dugg-dugg ci génn génn xelum kenn doyut moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne nit ñi ñett lañ nit ku mat sëkk ak genn wàllum nit ak nit koo xam ne du nit nit ki mat sëkk ñu ne mooy koo xam ne dafa am xel ba noppi di diisu dafa am xel ba noppi di diisu kon kooku mooy leen soxla tey ci sunub liggéey ay nit ñu am xel ñu am expérience ñu am compétence ba pare nag di dajaloo di diisoo kenn ku nekk yenn xelam ak expérience am pour ñu mën koo jëriñoo kon ki mat mooy ki nga xam ne yor na xel ba noppi di diisoo genn wàllum nit mooy ki nga xam ne dafa am xel waaye du diisoo xelum boppam daal doy na ko lu ñëw rek mu tànn nam ko neexe def ko ni kooku genn wàllu nit la ci dara nag nga xam ne du nit daanaka mooy koo xam ne amul am xel ba noppi du diisoo am na nag ci nit ñi ñoo xam ne noonu lañ mel seenum xel la muy gàtt gàtt doy na leen suñ jógee dañuy bay seen bopp rek def moo tax ci ay njaaxum lañuy dëkk kooku moo lay won ne nit ci jëmmi boppam munta ñàkk mu aajowoo keneen nit ndax sunu borom tabaraka wa moo moo tëye mbir yi noonu mooy kenn ku nekk da ngaa aajowoo sa morom boo xooloon yow ci sa bopp yi nga boole rek ba mën a génn yi nga boole ba mën a génn ku la ne woon loo liggéey dong yow loo xam ne yaa ko defaral sa bopp loolu ngay jëfandikoo ba mën a génn kon daanaka doo mën a génn mbubb mi nga sol la ko ràbb ab ràbbkat la boo xam ne sax xamoo ku mu doon boo ci jotee mu doonub tiise keneen a koy ñaw ku dul yow nekke noonu dàll ya nga sol montor ba nga yor portaabal ba nga yor rek lenn lu ci nekk keneen a ko liggéey nga jël ko yow sol ko jëfandikoo ko moom ko door a mën a génne sa kër di dem kon loolu rek daf lay jox leçon bu mag ci ne yow kat nekk kon da ngaa aajowoo nit ñi te boo demoon ca ka liggéey moo xam portable ba la wala tiise ba wala lu mu ca mën a doon kooka it ma yore yeneen yoo xam ne ñeneen ko liggéey mu aajowoo ko dem jëndi ko kooku moo lay jox leçon bu mag ci ne doomu aadama ji ci kaw suuf dafa woo yeneen doomi aadama yi moo tax su fekkee boole nañ seeni man-man ñoom ñëpp mu doon benn ñu doon am mbooloo la muy jur mooy ak mat suñ beroo nag la muy jur mooy ak wàññiku parce que sa xalaat duutu mat sa jëf ci boppam duutu mat su ko defee kooku day wone importance u liggéeyu mbooloo doyadi googu nga xam ne liggéeyu kenn moom lay doyadi mooy loolu beneen bi koy gën a wane importance bi moo di liggéeyu kenn di ko wóolu jamono yu tegoo ci liggéey benn waay boo xam ne moo defar ab association moo yor lépp bëgg a convaincre nit ñi beneen moom mooy association bi mooy membre yi te dafa bëgg ku ko jàppale ku ko defal lii kooku bokkul ak su mbooloo dikkee taxaw moo xam ne dañoo yor seeni i études yu tegu ci yoon boo xam ne kuy jëflanteeg ñoom xam nga ne mbooloo ngay jëfal jëflanteel na nga leen di wóoloo ni ngay amee ci ñoom confiance doo yi amee mukk ci jenn jëmm joo xam ne moo taxaw yor liggéeyu boppam kon kooku ci njariñ yi la bokk li gën a bari it mooy liggéeyub nit ki bu dee moom dong dafa yor liggéeyu boppam moo xam entreprise la moo xam rawatina liggéeyub lislaam liggéey boobu du tegu ci yoon ndax liggéeyub maa moom sama yëf lay doon nu ma neex laa koy tërale aw na ci yoon aw ci yoon day day làmbati di dem rek ndax keneen ku koy xalaatal wala ku naan ko lii du nii nañ ko defee nii ku mel noonu du ko gis day féetal rek di demal boppam su ko defee liggéey boobu du tegu ci yoon yooyu yëpp daf lay wan importance su euh, liggéey boo xam ne dafa tegu ci kaw groupe mbootaay yi taxaw nag dafa doon liggéey boo xam ne ci lislaam liggéey bu mat a bàyyi xel la ci njariñ lu am solo loo xam ne am na ko ci liggéey yi nu jullit yi ndax bokk liggéey ci ak tàggatu la tàggatu la ci diisoo ndax diisoo dafa am ñu koy defee noo xam ne laaj na nit ki ñu tàggat ko ci su ngeen demee ba ci kanam war ngeen mën a def ay séminaire yoo xam ne da ngeen di jël tomb bu sew boo xam ne si séminaire tey bi li ko tax a jóg danañ am ñaari fan yoo xam ne ci lu jëm ci diisoo rek la ñuy wax ak nu muy tëddee euh, beneen yoon jëlaat leneen su ko defee ay boroomi xam-xam yoo xam ne spécialiste lañ ci lu mel noonu ñooy wax ak yow ci loolu diisoo kiñ tànn ne mooy amiru mbooloo mi wala amira bi walla mooy mooy yore mooy njiit li moo xam tur wuñ ko mën a jox firiwul ne daa doon kilifa bu toog rek naan def leen ñuy def mu ne bàyyi leen ñu bàyyi ku mooy sama ndigal mooy nga yàlla ku déedéet du noonu waaye kenn la koo xam ne jullit yi dañoo xam ne dafa bokk ci seen biirub liggéey ñu war a tànn benn njiit waaye firiwul ne ay xalaatam kese mooy wéy li am nag mooy dafay diriger xalaat yi moom suñ dajee di diisoo moom mooy jéglu nit ñi wër ta jëkk joxe sa xalaatam daa war a déglu nit ñi bañ joxe seeni xalaat joxe kii joxe xalaatam kii joxe xalaatam ba yépp àgg mu ne leen ah man di déglu naa xalaat yépp waaye jàpp naa ne xalaat sàngam day muy bi ci bu buñ war a mën a jëfe la tey ndax nàngam ak nàngam ak nàngam lu ngeen ci xam ñu waxaat seen xalaat nga doog jël ko kon jëmmi diisoo moomu daf la ci tàggat liggéeyu mbooloo te nan lañ ko war a def beneen bi ci des mooy da leen di tàggat ci ki jiite mi ngi koy tàggat ci mu mën a jiite ki ñu jiite it mi ngi koy tàggat ci ne moom dañ koo jiite dañ koo jiite bu ëllëgee mën naa jiite kon jëmmi liggéey boobu ensemble daf lay jox ne njiit nii la war a mel kuñ jiite nii la war a mel ba bu ëllëgee buñ tegee ci sa loxo ne la yow yaa jiite mbooloo mi tey danga nga xam dëgg-dëgg ku jiite lan moo ko war ak ki ñu jiite lan moo ko war ak nan la ñuy àndandoo ñoom ñëpp di liggéey kon dana la jàngal itam beneen bi ci des dana la jox leçon bu mag ci li ma doon wax léegi mooy boo liggéeyee ci mbooloo tuuti tuuti tuuti ak lu mu gàtt gàtt da yëg ne li mbooloo man kenn mënu ko su ko defee dana tax nga gën a gëm liggéeyu mbooloo waaye rek am ay tomb yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la yoo xam ne ci kuy liggéey ci mbooloo rawatina nga taxawal association ay nit di ñëw di ca dugg di doon ay membre am na ñeenti tomb yoo xam ne war nga koo bàyyi xel benn mooy wattu la jàpp ne wattu la gëm ne dugg ci mbooloo moomu day doon lu war ñëpp nga xam ne obligatoire la nga ne ku ci duggul day mel ne bokkul ci diine ji wala bokkul ci sunna wala yu mel noonu déedéet wattandiku lu mel noonu dëgg la wool nit ñi wan leen importance bi nga xam ne am na ko ku bëgg a dugg dugg ku bëggul a dugg it nga ne ko jazakallahu xeyran li am solo mooy liggéeyal lislaam ku waaye nekk na ko liggéeyal kon tomb boobu moo ta bàyyi mooy na wattandiku dund li ñuy tuddee fanatisme maanaam xatal sa xol lool xatal géewul islam bi ci sa biir mbooloo ba tax nga jàpp ne ku nekkul ci biir groupe boobu dafa mel ne génn na sunna wala génn na lislaam sax léeg-léeg loolu itam na nga ko wattandiku kon wattandikul fanatisme ci biir liggéey boobu beneen tomb moo di mbooloo mi nga yore wala mi ngay liggéeyal ak luñ farlu farlu ak luñ góor góorlu góor góorlu ak luñ bëgg bëgg lu baax bul jàpp ne ay njuum te du ci am mu koy dañuy juum ndax ki du woon juum kenn rek la mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais keneen ku fi ñëw gannaawam ku mën a doon li ngay def doy na la ca waaye nag ay njuum te du ca ñàkk kon da ngay gëm ne beneen association bi taxaw wala beneen mbooloo bi taxaw fële noonu mu amee ay njuumte te it sa mbooloo am nay njuumte kon nga jéem a jariñu ci nit ñi pour defaraat say njuumte foo toll fu nekk loolu dee ko jéem a gëstu ndax nga xam ko ndax nga mën koo defaraat njuumte nag fi ñu koy xamee mooy li ngay liggéey li ngay def yow nga xool ko ndax lii ngay def lu sax ci alquran ak sunna la ndax dëppoo na ak alquran ak sunna am déet su dëppoo moom alhamdulilah léeg-léeg li ngay def mën naa doon lu sax ci alxuraan ak sunna waaye nii nga koy jëfandikoo ndax noonu la ba tey ndax dëppoo naag ni ko yonent beeki saxaabam doon jëfe su fekkee dëppoo na ak loolu alhamdulilah su dëppoowut ak loolu loolu nga daal ko jéem a soppi ñeenteel ba moo di kiy liggéey te nekk ci association wala mbooloo na jàpp ne liggéey yiin woowu ab étape la waaye fëj jëm mooy bépp mbooloo boo xam ne dafay liggéey ci cadre sunna jamono dafa war a mën a ñëw mbooloo yooyu yëpp nekk benn mbooloo boo xam ne wenn tur lay yor wala ñu doon ay jullit moo xam ahlu sunna moo xam tur wu ñu leen mën a jox jàpp ne mbooloo yooyu lu yàgg yàgg mën nañoo dem ba nekk benn mbooloo pas-pas boobu su fekkee bépp association buy liggéey mi ngi ko yor kon association am fii amaat fële amaat fële dafay jegeele jullit yi waaye du leen séparé ndax dañuy gëm ne ñoom dafa am tool bu yaatu ñuy bay kii tàmbalee fële kee tàmbalee fële kee tàmbalee fële ñuy ñëw bu yàggee dañuy mujj daje nekk benn su fekkee wér na ne ci toolu sunna nag la ñuy bay moo tax may waaye su fekkee bokkuñu fii ñu bay nag mënu ñëw daje ay tàmbale yoo xam ne yu mat a yu mat a bàyyi xel mbooloo nag dafa am eh, ay éléments yoo xam ne ñoo ko mën a dëgëral ay élément ñu koy tudde ay muqawimaat ci arab moo di bi ci jëkk mooy na bañ yor turu liggéeyu mbooloo kese te fekk jëmmi liggéey ba nekkul liggéeyu mbooloo loolu mat naa war sa dëkk léeg-léeg tur wi ak li muy nuróol day mel ne mbooloo mooy liggéey waaye boo duggee ci biir ñaari nit ay liggéey wala ñett loolu wattandiku leen ko ginnaaw liggéeyu mbooloo la mënatu la wëlbatiku nekkaat liggéeyu kenn moo tax lépp loo xam ne liggéey ba toll na fa ngir ñu xam ne suñ liggéey ngi dox ko dajeel ci biir mbooloo moom boo ko laajee dana la mën a wax ne liggéey bi fii la toll amul ko tuuti wala ku mag wala koo xam ne jege na euh, conseil d'administration wala jegewu ko fu mouvement bi toll ci liggéey ak seen i projet ak seen doxin bépp membre war na koo xam pour ñu mën ne liggéeyu mbooloo la te loolu mooy tax liggéey jëm kaw dañuy wax ne américain yi bi defaree seen projet bi nga xamee ne li ko taxoon a jóg mooy dem ci weer bi dañ ko defaral benn siège bu mag day direction ak ñuy liggéey yu mel noonu wàllu NASA ak ñuy ci wàllu jaww jeeg yu mel noonu John Kennedy dafa ñëw benn bés di seet ci projet bi ak liggéey bi fi mu bi muy dugg ci bunt bi mu gis kuy bale mu ne wool leen ma ko mu ñëw kenn ci balekat yi mu ne ko waaw tabax bii ak direction yéeg yi fi nekk yëpp lan la ñuy def mu ne ah ñii di projet dem ci weer wi lañ yor bi loolu àggee mu ne bi mu waxee loolu mu ne kon liggéey baa ngi dox bu fekkee kii bale xam na lan moo tax bâtiment yi direction yi jóg kon liggéey bi mi ngi ci yoon kon ki nekk membre ci biir mbooloo mi di liggéey bu mu jàpp ne moom bokku ci dañ may woo rek bu ñëw teew yi léeg-léeg sax ñu laaj ko mu ne loolu mbooloom diw sàngam ma te moom mi ngi ci biir nekk membre déedéet jàppal ne yow yaa ci teet jàppal ne yaa war a défendre mbooloo mi foo war a taxaw fu mu mën a doon jàppal ne yaa ko war a représenté itam ci sa pas-pas ak ci sa jaamu yàlla ak sa jikko loolu su dajee rek jàppal ne mbooloo maa ngi dox li fekk àggagoo ci loolu nag sooy liggéey ci loolu ba noppi door door a sori kon kooku tomb bu am solo la mooy na nekk liggéeyu mbooloo dëgg dëgg dëgg dëgg léeg nga gis ku bokk ci biir mbooloo nga xam ne mi ngi liggéey ci groupe bi di dem di dugg di génn boo nekkoon mbooloo mi nu mu tudd sax bala la ko wax dana ci xaw a sonn ci xalaat tuuti doom ne la nangam nangam la tudd wala mu bañ koo xam sax kon loolu wattat mat naa wattandi ko beneen bi mooy liggéeyu mbooloo boobu faaw mu teg ci organisation tegu ci lu ñu organise ndax su dul loolu anarchie la ñuy dund boo xam ne dara du dox te ki organiser wut di dox munta xam lam defagun ak lam defagut ak fan la toll lan moo ko manqué yooyu doo ko mën a xam waaye nag su fekkee dafa tegu ci aw yoon tegu ci ay commission benn bu nekk ñi mën a évaluer xool lu mu liggéey ndax mi ngi dox wala doxut man koo contrôler mën koo auditer sax comme ni ñu koy waxee xool ba xam fan la nekk ak lan la defagut ak lan moo ko dese su lu mel noonu amul doo xam ko mbooloo mi toll dañ naan daal daje war nañ bis nangam def nañ fa nangam ba loola jeexee tasaaroo nañ dem kooku kooku anarchie la bokkul ak loo xam ne lu ñu organisé la beneen bi moo di mbooloo mi mënta ñàkk objectif boo xam ne mooy bu mag boo xam ne fa lañ jëm lan lañ bëgg dëgg dëgg moo tax ñu taxawal association bi wala mbooloo mi ndax mbir mi daal mooy comme nii rek léeg-léeg ñu daje defu conférence léeg-léeg daje def séminaire maanaam loolu muy bit yi wala loolu di def lépp ay moyens la yoo xam ne dañ cee jaare pour am lu mu bëgg a àgg loolu mënut a ñàkk ndax su amul kii dox ku mën a doon te amul fenn fu mu jëm te amul fenn fu mu jëm wuutewul ak koo xam ne daa taxaw ci mbedd bi rek arrêté ab taxi mu taxaw mu yéeg borom taxi bu ne ko foo jëm mu ne ko demal foo jëm rek baax na kooku da lay wax wàccal ndax danaan benn wérut wala jubut kon yow mii dem rawatina ngay liggéeyal lislaam war ngaa leeral sa objectif li nga bëgg lu mu doon te loolu itam leer ci mboolem ñi ci bokk ne nun danoo fas yéene sun def lii bu yàggee danañ def nangam ak nangam ak nangam joo xam ne su taxawee rek lépp luy jigéeni jullit ci kaw Sénégal nangam ak nangam ak nangam dana la ko mën a jëriñ dana mën a jëriñ jullit yépp itam nangam ak nangam ak beneen bi ci des moo di liggéey bi ci boppam mu doon liggéey bu continuer boo xam ne du dog du dog wattandiku leen liggéey boo xam ne def nañ séminaire séminaire bi jeex na boo ñëwoon laaj lan moo ci war a tegu ñu ne ah ban waxtaanaatee da doon xam lan moo ci war a teew kooku dog na diggante boobu defatu leen dara kon fexe leen ba luy jeex rek am na leneen lu taxaw loolu nag li koy indi mooy def plan d'action boo xam ne danañ ci ñëw ci kanam tuuti boo xam ne balaa am at a dugg fekk na at mi yëpp li nga ci nar def teg nga programme ba noppi nga xam ne lu cay dolliku kay da cay dolliku waaye loolee nga tegoon moom dara du ci manqué su ko defee programme bu jeex xam nga ne lii programme sàngam moo ci sës nga xam ne fermé nañ tey rek séminaire bi kon bu subaa tàmbali nañ di liggéeyaat ci bi nga xam ne mooy ñëw su ko defee liggéey bu continuer doon boo xam ne du taxaw fan liggéeyu lislaam daal di taxaw bi mooy euh, itti nga xam ne moom la booloo laaj na doon itti yi ñëpp na doon itti yi ñëpp projet ngi taxaw na boo xam ne moom la mbooloo mi soxla la doon projet bi yëpp buñ ne loolu ci communication rek la aajowoo ñu ne kon ñu yor wàllu communication ñoo ko yor ñi ci des dem toog di nelaw déedéet kenn ku ne am nga ci cër communication day liggéey ñu yor leen ñi su ko defee liggéey yooyu yëpp bu àndandoo loolu mooy jëmale kanam liggéey waaye kat séddalee am mbooloo ay commission su fekkee li muy jur mooy bu commission bee di liggéey ñi ci des di nelaw kon mbooloo mi di dem toll nañ diggante boo xam ne liggéey bi lii mu laaj commission sàngam ñoom ñoo ko war a gën a laaj ñoo ci war a taxaw kon mbooloo mépp nañ àndandoo doon waa commission boobu ko ci seen ak seen xalaat ak seenu jàppale laaj bu ngeen tolloo mbaa am leen problème mbooloo moomu ñi ngi liggéey ba beneen liggéey ñu loolu su fekkee dara ñëw na nag loo xam ne commission bu nekk daa war a beeru liggéey abin da ke da yi da zama su da ke da dami ginnaaw dañoo bëgg a joxe exemple boo xam ne ci ne lislaam dafa bëgg jullit yi ñu bennoo ba nekk benn bolok ñoom mbooloo mi nga xam ne dafa bëgg a benn misaal benn exemple ñoom dañu war a bennoo ba nekk benn bolok seen intérieur muy seen biir mbooloo mi li ko war a mën a gën a fésal nga xam ne moom lañ ko war a mën a xamee di ko identifier bañ xam ko mooy seenu bennoo ak seenu jàppante ak seenu sori ay juyoo ak yarante ci yu sew sewaan yu tekkiwul dara dafa war a doon benn exemple boo xam ne ku ñëw ba dund ñoom benn bit xool leen da nga ne ah lii nga gis day bu fekkoon ne jigéen ñi yëpp nii lañ mel ci seen comportement jàppante googu jàppante bu dëgër ak dimbalante googu ak lu xew ci kii kee yëg ko muy jàmm muy safaan ba yooyu mooy li nga xam ne mooy mooy wane loolu te ba ca tomb boobu am solo moo di mbooloo yu bari taxaw nañ di dox ba mu yàgg ñu xëy am benn problème rek mbooloo ma tas maanaam waxisul ne mbooloo du am problème ok mën naa am waaye nan lañ koy fajee loolu dafa ma a xam fépp foo xam ne ñaari nit ak ñett ña nga fay daje problème dana fa am kër gi sax kër gi sax ak njaboot gi dañuy dem ba mu yàgg ay jafe-jafe am problème waaye jëmmi problème nan lañ koy saafara kooku ci boppam laaj na dem ba mu yàgg ab séminaire spécial boo xam ne pour régler problème yi xew ci biir mbooloo yi nan la boroom xam-xam yi gëstu ci wàllu liggéey bu mel noonu dañuy wax ne ak problème bu mu mën a doon loolu damay généraliser rek waaye liggéeyu lislaam am na ay particularités boppam yoo xam ne mën na ko wóotale ak yu baree bare waaye mën nañoo wax ne amuman maanaam généralement problème yi am yépp ci àdduna tàmbalee ko ci problème u état yi gën a kawe ba ci problème yi gën a suufee ci kër gi dañuy wax ne juróomi mbir mooy daje problème bi am solution juróom bu ci manqué nag rek problème bi du am solution bi ci jëkk mooy li ñuy tuddee tahdid al mushkila mooy euh, identifier problème bi ci boppam lan la il faut nga xam problème bii lu mu doon li xew lan la ba ma tuddee ko problème ndax kat léeg-léeg nit ñëw ne la dama laa soxla ndax damaa am problème ak sama kër wala dama am problème ak sama benn xarit boo ñëwee boo leen dégloo ñu wax ba àggal la ñuy wax du problème maanaam du du dara ay wax yu déggoowut la kii daa waxe nii keneen ka am leneen lu mu ca déggee loo xam ne bokkul ak li kii di wax waaye problème nekku fa su ko defee soo leen ne lii du problème ndax nangam ak nangam ak nangam loolu foofu lay kon li jiitu mooy xam problème bi xew lan la tomb boobu faaw mu am ba noppi ñaareel ba moo di analyser ko problème bi taxliilul muskila analyser problème mooy lan mooy lii de wax dëgg problème la xam naa ne léegi identifié naa ko ba xam naa ne kii muskila la faalan maanaam problème la waaye problème bi fan na toll ndax bu rëy la walla bu ndaw la ndax yeex koo saafara mën naa jur yeneen i problème ak it ndax jëmmi problème bi am na yeneen yu ci aju yoo xam ne su ma ko bàyyiwul xel su ma ko saafara woon tey bu ëllëgee problème bi dana dellusiwaat loolu lépp dafay dellu ci gëstu ba xam problème bi fan la tollu dëgg-dëgg kooku mooy ñaareelu tomb yooyu benn mënu cee ñàkk ñetteel bi nag te yii may wax nii dafa mën a neex lool su fekkee mbooloo ñooy ñoo ànd di liggéey parce que kenn ku ne boo joxee sa xalaat rek mu leer nañ yépp ay feeñ ñetteel bi mooy teg ay proposition yu bare bare bari ci loo xam ne ay solution la ay solution loo jàpp ne lii war na ko mën a saafara nga nga bind boobu teg xalaataat beneen nga bind teg na mat sax téeméeri solution kooku mooy étape boobu boo noppee ci loolu ba jàll boole loolu nga xam ne mooy mooy solution yu bari yi nga wëlbatiku nag tànn kooku mooy ñeenteelu étape bi tànn ban solution moo nekk meilleur maanaam mooy bi gën ci boo xam ne moo war a mën a saafara problème bi kooku dañuy xam ne am na ñaari sàrt mooy loolu ngay jël mu di ko saafara na doon loo xam ne bu mu yées problème bi waaye bu mu ëpp problème bi itam bu mu ko yées mooy lan mooy bu mu dikk nga saafara ba pare problème bi desaat bu mu ko ëpp mooy lan mooy lii dafa waroon a saafara problème leneen lu rëy nga ñëw di ko saafaraa lu tuuti su boobaa loola saafara su jur jàngoro lay doon maanaam mën naa faj la fa nekk waaye dana indi leneen loo xam ne moo yées loolu kon daa war doon problème exact boo xam ne saafara exact boo xam ne bu ñëwee problème bi lay saafara exact moom itam su ko defee boo defee loolu ba àggal nag ba jëfandikoo bi nga tànn ba saafaraa ko problème bi nga wëlbati ko nag xool ko def li ñu tuddee taxwiil kooku mooy euh, évaluer problème bi ba xam ne ndax wér na ne saafara na ko wala déet ndax loo ko wóolu wóolu faaw nga xool résultat bi ak meññeet mi impact bi ba xam jur na njariñ wala dangaa ngaa jàppoon ne jur na ko te fekk juru juróomi tomb yooyu su dajee ci problème bu mu mën a doon mën naa saafara léeg-léeg ma joxe misaal di laaj lii su la daloon fi béréb noo koy saafara pour ñu jéem a jël juróomi tomb yooyu jaar ci ba xam kenn ci yéen dugg na ci benn restaurant seen soxna aña añ ba noppi xool pochette am xool nekkati xaalis nekku ci xool xaalis nekku ci léegi nooy def kenn ko nekk mën nga xalaat ci loolu tomb bu njëkk bi mooy xool problème bi ndax problème la walla déet ah problème la defe naa su ko defee tomb ba ca mooy analyser ko ndax problème bii lan la mën a jur soo jógoon rek dem lan la mën a jur mën naa indi man naa jur yeneen dañu dem ba ne moom léegi ndeke day dugg ci restaurant yi di lekk génn di bañ a fay suñ waxee waxuloo suñ waxee def naan sa dara yàqu ci loolu mën nga ci dem ci yoon kon problème bi boo xam ne boo ko analyser tuuti nañu waaye tuutiwul léegi nag ñu ñëw ci solution yi yan solution moo am foofu wàcc nga ci dëkk boo xam ne su sab dëkk dugg nga ci restaurant lekk nga ba noppi yoruloo xaalis boobu lay waaw soxna si léegi Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw soxna si tudd na benn solution dañuy dajale rek ay solution bu noppee tànn nee na bu fekkee ne da ngaa yore sa portable sa téléphone nga woote ne leen man kat daa am lu ma dal fii indil ma xaalis ñu ñëw indil la xaalis wax benn la wala ah. beneen solution boobu soxna si nee na da ngay laajte ki moom restaurant bi dem gisee moom yëgal ko sa problème ah beneen a ngoom tey ba tey. Hmm? ala kulli xaal daf lay jox misaal ne problème bu am bu nekk xamal ne ay saafara am na mën naa bari mën naa néew mais pexe bi ñàkk yii ñu tudd benn bu ci nekk war na ko mën a saafara war nga mën a woo nit mu ñëw indi li nga xam ne moom ngay war nga mën a gisee borom wax ko ko mën ne ah loolu garaawut comme que dalaa daal demal baax na noonu wala ma ne la demal boo su boo demee nga ñëw fay si ko lu ci nekk mën na nekk kon am na ay saafara mën na am yeneen ak yeneen ak yeneen su ko defee boo noppee tànn bi ne moo ci gën mu daal di saaf problème danaay jox xale yi misaal léeg-léeg ma ne leen fi nga toog nii soo demoon ba mu rek nga xool gis ne ndekki dàll yi sol bokkul ndax problème la wala ko defee su boobaa yow nangu nga ne lii problème la li fa sës mooy xool ba xam nag problème bi lan mooy dimension ndax bu garaaw la lool nag wala àgg na fenn wala àggul fenn fi dafa nag génn soldat yu bokkul jaar si mbedd mi dem mën naa garaaw mën naa bañ a su ko defee la nag mooy lool man lañ koy saafara te loolu mooy li ëpp importance toog nga foo xam ne comme fii ñu nekk nii xool nga say daal yi nga sol bokkul ban saafara la ni mën a am wala bàyyi noonu rek aha maanaam génn dem kër ga changé daal yi del siwaat wala nga àbb dem àbb ay dàll del siwaat loolu kenn tudd na loolu léeg-léeg problème bi doon bu tuuti waaye moo gën a jafe saafara maanaam boo xoolee bii problème nii moo gën a tuuti bi weesu mais bii moo gën a jafe faj parce que boo nee damay jóg di dem kër ga li nga doon bañ mooy sol dàll yi mu feeñ faaw nga sol ko romb nit ñi dem kon mën ngaa bàyyi ba ñibbi jot rek nga ñibbi far benn su ko defee saafara si day day mel ne sottiwu foofu bon kooku mooy tomb bi ci tegu bi ci des mois di li ñu tudde ak taxtit as salim mooy planification li ngeen di liggéey di tegu ci plan maanaam at mu nekk war naa am am ndaje moo xam ne teg li ngeen bëgg a def ci at mii léegi noo ngi nii nekk ci at moo xam ne day door a teru noo ngi ci deusième mois bu dee ci atum jullit yi bu dee ci meneen at mi itam weer wii di ñëw ci lay tàmbali ay fan yu néew kon 2013 boobu su doon moom nga bëgg a tegal plan jaadu na fi ñu toll nii seen conseil d'administration wala su fekkee am nañ commission boo xam ne moo yor lu jëm ci wàllu plan ñu daje pour teg plan boo xam ne moom ngeen bëgg a def ci 2013 ba ca le 31 décembre bu 2013 lan ngeen ci bëgg a def plan boobu teg ko jot na léeg-léeg lu bari ci association yi ak mbooloo yi nga xam ne dañuy dox doxin wu dëgër plan ñetti at la ñuy tegaloo benn yoon am ci ñoo xam ne plan juróomi at la ñuy tegaloo benn yoon certes li ngeen bëgg a def ci juróomi at yi globalement bind ko benn bu ci nekk tegu ci yoon kon loolu doon na loo xam ne lu mënta ñàkk ci liggéey bi la ndax su amut loolu mooy indi liggéey bi dem ba mu yàgg mu taxaw ngeen toog di xaaraat kañ lañuy ñuy amaat beneen programme pour mën koo defaat tey su fekkee plan boobu xas na tegu ba ngeen teg ko ci anam yi mu war a tegu kenn ku nekk dal ngay xam li la ca war ak ñaata ci temps muy waxtu moom lañ la jox pour nga war cee réaliser loolu ñu la sase su ko defee liggéey bi du taxaw même nit ñi suñ nekkul di daje sax kenn ku nekk fa nga nekk yaa ngi liggéey ci ci biir plan boobu nga xam ne moom nga am ndax xam nga li ci sa wàll yaa ngi ciy liggéey guddi ak bëccëg bu yàggee nga ne noppi naa liggéey ba day daal di dox danañ ñëw ci kanam ci yi nga xam ne mooy yi ëpp importance ci loolu palaa boobu laaj na ci misaal suñ jëloon dañuy wax ne pour nga teg plan bu baax na doon loo xam ne lu mën a nekk la lu yanu maanaam maanaam bu mu doon gént boo xam ne dafay sori ba ëpp ndax ci biirum at nga bëgg a tudd yu bare bari yoo xam ne xam nga ne xajut ci at mi loolu gént la waaye doo doon lu mën a nekk mais boo xoolee nag li mën a nekk nga ne lii ci at mi laa ko bëgg def loolu mooy charte bi ci jëkk beneen bi ci des mooy loolu nga def bu fekkee da koo ko bëgg a réaliser nga xool lan la laaj li mu laaj moo xam alal la moo xam activité moo xam lu mu doon loolu ñu bind ko mu nekk plan beneen bi ci des séddale ko moo xam par commission yi benn bu ci nekk la ca doon wàllam beneen bi ci des mooy analyser ko moom moom plan boobu xam yan point fort la am ak yan faiblesse moo ci am ak yan défi la am muy taxadiyaat yi ak défi yooyu mu am nan nga koy saafara yooyu su dajee eh, jàpp naa ne plan bi dafay daal di mën a tegu ci yoon woo ne bu baax a baax la jàpp naa ne ci seen liggéey yi nii ci soxna yi loolu ay proposition lay lay nuru moom laay tëjee suñ noppee joxe ci misaal mooy ci wàllu liggéeyu jigéen fii laaj na ay centre waxuma ab centre waaye ay centre de couture yoo xam ne dafay ñaw colum jigéen ci lislaam dëgg dëgg dëgg nu muy mel man koo ñaw ci anam goo xam ne man ko parsanté ci anam goo xam ne dana dana attiré ñenn ñi ndax ñu bëgg col moom ndax mu mën a wàññi li nga xam ne moom la ñuy gis ci mbedd mi tey kooku liggéey bu rëy la boo xam ne association bu mel nii war na ci mën a liggéey liggéey boo xam ne bu ñu war a mën a wane fu ne la international sax war nañ ci mën a def foire boo xam ne nit ñi dañuy ñëw di ko seetaan si ci kaw liggéey boo xam ne xaraña nañ ko tegu na ci yoon ba noppi dëppoo na ak ni nga xam ne noonu la ko diine bëgge kooku liggéey la boo xam ne projet bu mag la boo xam ne war naa mën a dugg ci seeni projet yéen yi nga xam ne fi la ñuy euh, defe li ñuy nga xam ne fa la ñuy jàngale nit ñi li ñu tudde tabarruj jigéen ñi nga xam ne dañu gëm sunna war nañ cee mën a ubbi ay centre yoo xam ne ay place yu mag yoo xam ne defar kawar ak defar yaram ba noppi solal nit ki col moo xam ne col mu baax la moo xam ne ma lislaam nangu loolu moo fay nekk su ko defee loolu dana doon loo xam ne eh, ñiy muuru duñu am problème ci fan lañ war a mën a defe ji loolu tey du tax mu doon loo xam ne da leen di yóbbe li ñuy tudde tabarruj muy feeñal sa taar ci mbedd beneen bi mooy ay dispensaires yoo xam ne yu jigéen la kenn gën ko yey association boo xam ne ay femmes musulmanes ñoo ko moom ñu taxawal ay dispensaires yoo xam ne ay jigéen ñi kese ñoo fay liggéey ñoo fay faj ay jigéen itam lañ fay faj ñoom ñoo ko gën a yeyoo ñëpp kon kooku projet bu mag la bu mat a bàyyi xel seen mbootaay gi laaj na mu am ab siège boo xam ne mooy place am kooku projet la bu mag boo xam ne lu ngeen war a bàyyi xel la kon defe naa su ngeen bëggoon a teg plan tey ci lu ngeen bëgg a def ci at mi am na yu bari yu taxaw ci seen kanam yoo xam ne yu yu mat a def la te li tax liggéeyu mbooloo am am solo mooy kenn ku ne ci yéen manoon ngaa yor initiative bu loolu nga ne dama koy defal sama bopp mais kenn nit ku taxaw di jéem dara bokkul ak mbooloo muy def dara xalaat yi dana daje mu doon yu am njëriñ suñ ne nañ ko ci si kenn ku ne mën ngaa génne 1000 francs teg mu daal di nekk 1 million loolu mbooloo koy def waaye kenn mënu ko boo génnee sa 1000 francs yow rek lay doon mais bu mbooloo bu bari génnee suñ leen mu bokk seen initiative ngeen ne fas nañ yéene 2013 balaa jeex danañ am 1000 membres 1000 membres yooyu bu kenn ku nekk génne 1000 francs kooku 1 million la bu kenn ku nekk génne 25000 francs nag ci at mi kooku xaalis bu bari la dana mën a réaliser lu bari nga xam ne tàmbalee nga ci sa bopp ñaareel ba mooy sa projet boobu foo ko wane ci àdduna ñooña danañ ci sawar ndax danañ xam ne ñii buñ dikkee mbooloo la ñuy jëflanteel mais jëflante wuñ ak benn wala ñaari nit te liggéeyu mbooloo bokk na ci mu mbiram li ko am solo mooy luy continuer la yemul ci nit boo nee diw sàngam laa dimbali diw sàngam jenn na àdduna ay doomam doon loolu liggéey ba doonatu doon liggéeyu lislaam ndax ay doomam lislaam mën na leen a ñor mën na leen ñàkk a ñor mais liggéeyu lislaam bi nga xam ne dafa tegu ci ay conditions yu leer nañ nga xam ne xam nañ ne lii lislaam moo ko tax a jóg bu fa diw sàngam jógee liggéey ba day continuer di dox ci conditions loolu moo tax ñoom ñoo gën a am sens ci mën a am confiance bi dimbali leen jàppale benn projet boo ci jëloon tey jaadu na nga xool tomb yooyu ma tuddoon léegi mooy xool euh, lan la laaj ci alal ak defaral ko plan par exemple boo jëloon benn dispensaire jaadu na nga xool lim laaj lépp ci wàllu alal euh, débit bi nga xam ne moom moo koy moo koy tabax matériel bi fa war a dem defal ko plan bu nekk ci këyit ñaareel ba ci seeni ndaje plan bu ñu koy tegal jaadu na nga xool e, yan point fort la am moom moom moom dispensaire boobu nga xalaat ne ah nun kat am nañ ay charge femme yu bari de ñu ne ah kooku point bu am solo ngoog kon yoo xam ne ñu jàng lañ ñu diine ñor la te itam waa sunna lañ te itam pare nañ pour liggéey foofu ah loolu kon point fort la bu am solo boo xam ne bu mat a exploité la nga xool ci beneen côté faiblesse yi nga xam ne projet bi am na ko nga ne ah am na ci yoo xam ne di xam naa ne yombut lu mel ni autorisation nga ne kooku kon jaar na bàyyi xel bu baax fan la ñuy jaar ba am autorisation ak doxin ya nan lay demee ah man nga ko bëgg taxawal am ñeneen ñoo xam ne dañuy jóg taxaw ne ah ñii liñ ci bëgg a taxawal nun tey laayit lañ nekk nuñ fuñ jaar nii bëgg fee def loo xam ne ay jigéen kese ñu muul ñoo fay nekk ñu mel noonu yooyu yëpp ay défilé mais am na ci yoo xam ne défilé yoo xam ne la koy saafara mooy bañ koo tontu ndax su demee ba taxaw bañ gis ko su boobaa ñi doon yor làmmiñ di wax ñoom ñooy jëkk a ñëw di si jëriñu si moo tax projet yu bare bare bari boo ko dee liggéey ya jarul nga di ko bàyyi xel bu sottee rek loolu moom saafara maanaam projet ba am mooy saafara problème bi am na ci problème yoo xam ne nag dañ ko war a dox mu sotti yooyu yëpp soo ci noppee nag séddale role yi commission yi nit ñi kenn ku nekk xam lan la war a def ci projet boobu yow diw sàngam yaa ngi ci biir mbooloo mi xam nañ ne ku yàgg lijjanti ay dossier la lu jëm ci wàllu autorisation bi yow lañ ko jox demal nga doxi ko boole nañ la ak diw ak diw ngeen di ab commission fu ngeen toll fu nekk na ngeen ko wax sase nañ la daal fii ak trois mois nanga ñu indil contrat bi kooka dem yow diw sàngam wàllu plan am na ñoo xam ñoo xam ne ay architecte lañ yoo xam ne mën nañoo def ay plan jox leen lu aju ci loolu yow diw sàngam lu aju ci wàllu suuf ak ay terrain yooyu xam nañ ne yàgg nga cee dox dem nangam sase nañ la lu mel noonu liggéey bu mel noonu su doxee diir bu gàtt rek da ngeen di réaliser lu bare bare te yëgu leen su dul loolu nag da ngeen di toog rek di def seeni conférence di dem ak ñëw te lu yàgg-yàgg su ngeen aajowoo fu ngeen def place da ngeen di àbb place da ngeen di àbb salle de conférence da ngeen war a dem ba yooyu yépp nag am ko góor ñi sax dañuy ñëw soxla ne ah man soxna yi laa fas yéene àbb sama salle de conférence bi parce que euh, seenub moo gën a am ay matériel nangam ak a nga fa te saalu diw sangam ma nangam kon yu mel noonu yu mat a bàyyi xel la ci biir liggéey bi Euh, ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq di am mbégte baax a baax ci liggéey bi ni muy doxee nii di ñaan yàlla mu jëm kanam di gën a soññi mbokk yi ci ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax a baax euh, te li ma waxoon te di ko gën a fàttaliwaat bu baax a baax mooy ñëpp maase jox ko yitte maanaam ñu bañ a jàpp ne liggéeyu kenn la wala liggéeyu ñaar la waaye seen liggéey la yéen ñëpp kenn ku nekk fa nga nekk. liggéey ba nga fa nekkal noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq mu defal ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain hmm? mu jeex kon ñu ngi leen di tàggoo insha allah ñetti laaj waaw bismillah waaleykum salaam mu ne ma ne dañoo am ay laaj loolu mën a waaw kon léegi fii treize heures vingt minutes la kon ñaar fukki minutes yooyu ñu def ko ci laaj yi incha allah. waaw léegi laaj bi ñu njëkk a jot ci moom mooy dañu ne lu islam wax ci ki ñu tànn amee wala amira mu daal di bañ loolu ñu ko wax ba ñu jox ko kenn koo xamante ne jàpp nañu ne capacité moo gën a wàññeeku ba mu alhamdulilah ki nga xam ne dafa dañ ko seetlu ba tànn ko jàpp ne moo war a jiite mbooloo mi na def ci xelam ñaari mbir benn bi mooy ñi ko tànn dañ koo tànn ngir luñ gis ci moom wala luñ yaakaar ci moom te it ko pour ne na doon boroom liggéey bi waaye dañ ko tànn ngir nekk ci gannaawam di liggéey beneen bi mooy na tànn ne na jàpp ne na xam ne liggéey bi yan boobu ñu ko ci yan lislaam ci boppam la ciy liggéeyal kon tuyaaba la ciy wut dadi nag lu bare bari li tax li nekk ci xeli nit ñi ci jiite ñi di ko daw léeg-léeg da gis koo xam ne lam cay ragal mooy jëmmi jiite jëmmi jiite dafa mel ne fitna da cee nekk ndax day daal di mel ni moom buñ ne mooy amir wala mooy amira rek day daal di jàppe boppam kooku mooy koo xam ne mooy président de la république wala yu mel noonu wala mu nekk imaamu doomu aadama yi ci kaw suuf su ko defee njiit la loo xam ne li ko dese rek mooy toog moom di digle ka tere yëg-yëg boobu nag su nit ki jàppee ni ci lu mel noonu lañ koy bëgg a dugal ñu bare bari loolu duñ ko nangu waaye dañoo war a leeral mbir mi ci nim simple ñu wane ni fii rek la toll maanaam ñu bokk di liggéey la comme ñu àndoon di tukki ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñuy jël kenn ki ne ko yow kat yaay njiitul tukki bi ba ba ñuy del siwaat kon yow dafa am diggante boo xam ne dañ ne la yaay jiite mbir mi ñu essayé su ko defee nga def loolu del siwaat su fekkee moom ci boppam moo xam ne li nga koy bëgg a jox nit ñi dañoo rafet ci moom jot waaye xam na ne mënu ko ndax am na yeneen i yan yu mu yanu yoo xam ne tax na attanu ko su ko jëloon mën naa yàq liggéey bi wala yu mel noonu kooku suy gàntu na leen expliquer lan moo tax mu gàntu ne leen nangam ak nangam ak nangam moo tax mënu ma ko yor su ko defee convaincre leen mu daal di mën a noppalu ci lu mel na kon loolu defe naa ne su amee rek day daal di doon lu baax mais su dut loolu moom su fekkee ak pal lañ ko jàppee ak pal loolu moom daw ko moo gën moom nangu ndax la chaque ne borom xam-xami salaf li ñu tudde pal dañ ko daan daw am na ci ñoom ñoo xam ne dañ leen a kilifa gu mag koo xam ne amirul muminin dafa xëy fal ko ne ko yow yaa jiite mboolem attekat yi place boobu lañ la bëgg a jox mu gàntu mu ne ko man maay amirul muminin te forcé naa la ci loolu bi mu demee ba amul benn pexe dafa xëy dof dof la di wax wax yoo xam ne du waxi nit ñu ne kooku dafa wéradi ñu indi ko ci kanam amirul muminin muy wax yoo xam ne kenn xamul yu mu doon ñu ne ah kon jéggal nañ ko dafa dof mu delluwaat ca daaraam di jàngale kon bu fekkee ak fal la tudd moom daw ko moo gën daw jëm ci su dee nag aw sas woo xam ne dañu la ko sase pour nga liggéey ko comme ñëpp su boobaa jarul gànt wallahu taala ay jël alhamdulilah ki ñuy tànn muy jiite bu leen fàtte mukk ne am na ay critères yoo xam ne moo tax ñu tànn ko maanaam ay melokaan yoo xam ne benn ci wàllu diine wàllu xam-xam wàllu ragal yàlla wàllu xel mu rafet wàllu expérience yooyu buñ dajee ci nit ki mën naa déglu xalaat yu bari ba noppi tànn ci benn boobu muy tànn nag léeg-léeg nit ñi dañoo ne da ciy am ñu neexu la diisoon ndax day am ñoo xam ne xalaat bi ñu indi woon dañ ciy gis seen bopp suñ ko bàyyee ñu ne ah waaw man lan moo tax mu jël sama xalaat bàyyi xalaatu du sàngam loolu nag bokkut ak liggéeyu diisoo diisoo moom yow joxe nga sa xalaat rek xalaat yépp mënuñoo àndandoo jëfe leen bul fàtte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy diisoo dañoo jekk ba mu yàgg ñu ne ah yéefar yi day ñu ngi ñëw dañoo fas yéene attaqué Madina ñi ngi Uhud mu dajale mboolem al ansar wal muhajirin mag ñooñu kilifa yu mag yooyu mu ne ndax ñaari choix rek lañ am benn ñu génn fekk leen fañ nekk bala ñoo dugg Madina walla ñu def genn kaaraange wër Madina défendre ko ba duñ agsi mboolem kàngam yi ak mag ñi seen xalaat moo doon nañ aar madina taxaw wër ko ak seen i ngànnaay mboolem ñi nga xam ne ñoo doon ndaw ñi ñu ne déedéet nañ génn fekk leen fañ nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu xoolee ñaari xalaat yi xalaati gone yi la jël foofu mag ñi ay Abu Bakr Siddiq ak Omar bi Xattaab ak mag ñu mënoon nañ ne waaw lu tax muy bàyyi suñu xalaat di jël xalaati xale yi waaye déedéet defut noonu kon ki nga xam ne nag mooy njiit li ñu tànn ko ba def ko njiit ci lu mel noonu mu déglu xalaat yépp wax naa ne la sañ naa tànn benn xalaat waaye mu expliquer leen nag lu tax xalaat gii daal laa jàpp ni mooy bi gën a rafet ndax nangam ak nangam ak nangam ak nangam loolu nag du tee mu dégluwaat leen su waxee sabab yi nga xam ne moo tax mu tànn boobu am ku leeralaat beneenu xalaat mu déggee ca loo xam ne tax na mu gën a dëgër bii mu tànnoon kon na bàyyi bi mu tànnoon jëlaat bële looloo tax mën naa nekk waaye du ne rek wax ngeen ba àggal baax na kon danaa ci tànn benn déedéet da bi mu tànn itam day wax ne bii la nangam ak nangam ak nangam moo tax mu tànn waaw. lépp di liggéeyaloo su ko bëggee du yombeeloo ba tax na ñenn nit ñi rek ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy yor ba pare duñ ko jëlee comme liggéey bi liggéey comme suñu bopp dafa nekk loo xam ne liggéey seen mbir mu xaw a waaw moom de dara tanewu ci daal yeete gi ak ak di waxtaan ak ñëpp ak di leen wan seeni responsabilité ci biir liggéey kenn ku ci nekk mu xam li nga xam ne moom la war a taxawe commission yi ngeen séddale fexe ba ñëpp kenn ku nekk nekk ci biir commission su ko defee ñi jiite commission yi ñuy ñuy seet seen membre yi di leen daje dajale ñuy bokk di liggéey te lépp lu xew lu mën a doon it ñëpp maase xamandoo ko jaaree ko ci commission yi dara bañ leen a réer ndax lu dul loolu su amee ñoo xam ne ñooy liggéey ñooy daje ñoo xam fi yëf yi ñu ñi ci def xamuñu ko bu yàggee rek ñoo ñu jiite lañuy ñuy daal di tudde mbooloo mi ne ñoom ñoo ko moom wala ñu naan am te loolu loolu baaxul ci liggéey ku ci nekk ku ne rek da war a yëg ne yow yow yaa ko jiite wala si ñu ko jiite ci nga bokk. liggéey islam su fekkee ne eh, amul ndigalul boroom këram ci yenn yi yenn yi loolu moom du ca sañ dugg lu mel ni ay ay ay réunion ay sorti génn dem ak jël seeg yu mel noonu loolu su ci amul ndigal sañu caa dem dani nag am na ay xeeti liggéeyin yoo xam ne mu ne su ko tere kenn maanaam sa participation bi nga xam ne da nga ko war a joxe ci mbooloo mi ñu ne am lañ lay laaj loolu kooku mënoo koo bañ a joxe su la ko tere woon it kooku ginnaaw liggéeyu lislaam nag da génne sa alali bopp ji nga moom ji ko ci def kooku kenn sañu la koo tere moom waaye nag am na yoo xam ne su la ko tere woon benn nga naxanteeg moom ba mu bàyyi la wala nga def la mu wax boobaa mooy jaar. bariwut am na ay laaj yu ma yor fii de ki def ne borom xam-xam yi dañoo juuyoo ci. kàddub jigéen ndax euh, awra la wala du awra kàddu awra la moom loolu boroom xam-xam yi ñi ko ci wax ñu néew a néew la àggul ci turam waaye nag kàddu gi mën naa nekk awra ndax jigéen dana wax borom bi tabaraka wa taala daf ne wa qulna qawlan maarufa jigéen ñi dana wax wax joo xam ne ju fulla wala juñ mën a dégg la ci li ñuy bañ mooy waxin woo xam ne ay damm baaxe nga caag yu nuroog yooyu way moom taxut ñuy wax ndax bu fekkee ne damm kàddu ak waxin ko wax waxin sewal sa baat ak yëkkati waat ak suufale waat yooyu yëpp ay xeeti mbir la yoo xam ne ni ko borom bi waxee fala taxdaana bil qawli fa yatma alladi fi qalbihi marad bu leen di damm kàddu yooyu di ko yëkkatee ko wàcce ndax loolu mën naa fitnaal koo xam ne xolam dafa feebar ndax nit ñi am na ci ñoo xam ne ni xool di feebare ci yaram noonu lay feebare itam ci wàllu bànneex ba yu mel noonu daf leen di lor ñu ne jigéen yi moo tax muy war a wattali ki mel noonu waaye nag wax kul la moom jigéen dana ko def hmm. kii itam daf ne bu fekkee jigéen ji dafa dem seeti ab docteur docteur bi sàkku ci moom mu dindi yéeréem maanaam mu summi yéeréem te fekk benn maxaram nekku fa maanaam àndut ak jëkkëram àndut ak mbokkam mu mu ko jege euh, mu ne nan lay def ala kulli xaal loolu ci fitna yi nga xam ne yu ñuy yi tax ñiy soññee lu mel noonu jéem a góorgóorlu ba ay hôpitaux am yoo xam ne jigéen mooy faj jigéen góor di faj góor loolu moo ko waral après lii mu wax ni réalité bu ñuy dund la dani nag borom bi tabaraka wa taala daf ne fattaqullaha mastatatum ragal leen yàlla seen kem kàttan ki nga xam ne dem na ba nekk situation boo xam ne danger ñëw na maanaam ak dundam mën na cee te lii ko dal gisuñu benn spécialiste boo xam ne jigéen la bu ko bu ko mën a faj góor rekk moo fi sës su boobaa nag góor moo fa sës ndax lislaam ay qawaayidam noonu la tëdde ad-darurat tubixu al-mahdurat yi nga xam ne ay nécessité lañ buñ dikkee mën nañoo daganal loo xam ne luñ tere woon la waaye ak daganal boo xam ne day yem képp ca loola nag su boobaa daal docteur boobu mën naa gis ci moom loo xam ne sañu ko woon a gis mën na koo faj yitam waaye nag jaaduwul ni muy wéet ak moom maanaam muy wéet ak moom bu gàtt gàtt na am keneen ku fa nekk koo xam ne moo leen di ñetteel ñàkk pexe rek mu mën a andi mel sallam masaana kaalaam ndax e, kaala gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon gën a mooy koo xam ne dañ koy laxas ba mu dëgër fas ko tekki ko kaalawuwaat ko du lu yomb kon moo tax ñëw na ba war a masaa boppam mu daal masaa rek ci kaw kaalaam moom kon jigéen ji ñaari mbir mooy tax mu mën a masaa ci kaw kaalaam benn bi mooy ni mu ko takke su ko dindi woon takkaat bi mën naa indi tuuti coono su boobaa mu sañ a masa wala mu ragal ne su ko dindee di masa karaw gi ku war a gis ci moom euh, ku góor wala yu mel noonu mën naa gis ci moom lu mu warul woon a gis mu masa ci kaala maanaam lu mel noonu moo koy moo koy mooy tax mu sañ ko. loolu dañ si doon dégg ne charte bi mooy fekk bi ñu teg kaala ci amoon ko. waaw loolu mënut a ñàkk waaw day fekk mu amoon ñàkk comme comme kawas yi rek wala sànni yi comme ni ñu ko tuddee. danañ fàttali ñu yeggali ko xadis bi ne bi yonent saa salaam wax ci aleykum bil jamaa waaw aleykum bil jamaa fa innama yakulu addibu min alganami alqaasiya fa innama yakulu addibu min alganami alqaasiya daf ne aleykum bil jamaa maa ngi leen di dénk ngeen nekk mbooloo fa innama yakulu dib ndax till gi bu ñëwee dafay lekk ci jur gi alqaasiya mooy bu sori bi nga xam ne dafa sore ak jur gi nekkul ci seen biir dafa ber dafa isolé boobu lay lekk su ñëwee loolu lay laaj. mooy da ci film. film de ci ci benn règle mooy lépp loo xam ne. bu ko nit ki gisoon ci mbedd bi seetaan ko dafa xaraam seetaan ko ci biiru télévision wala écran day day araam moo xam jigéen ju raflew la walla wax ju baaxut la wala bépp geste wala loo xam ne lu nit di def loo xam ne lu baaxut la ci bitti bu nekkee ci biiru écran yi tam bu baax loolu rek mooy régal bi film yi nag daf cee am yoo xam ne la cay bon moom dafa bari ndax yëmut ci ñu def yaramu neen da ngay gis ñu doon ay jigéen wala ñu doon ay góor waaye léeg-léeg la ñuy traité ci boppam jëmmi tem ba mën naa doon bu yàqu pas-pas wala mu doon bu yàqu jikko wala mu doon boo xam ne dafay def ci nit ki sax loo xam ne mën na caa jóge euh, faaw moom ci boppam yàq moo tax yu mel noonu moom daf ko tawatale ci wàllu loolu moom ci wàllu administration buñ ko dee xool am na ay mbir yoo xam yu aja détaillé ci liggéey yi maanaam mënuñoo jàpp rek ne moom dafay jël décision boppam rek jekk-jekki def li ko faral di def déedéet proposition mën na koo yore xalaat koo xam ne gis na ne lii bëgg na mu jàll mu ñëw waxtaan rek conseil d'administration wala ñi muy diisool loola jàll léeg-léeg ne mën naa am nit mu jëm moo xam ne dafa taxaw fii nga xam ne lii moom mënees ci bañ a jël décision su ko deful rek musib bu mag mën na ca tegu wala liggéey bi mën naa yàqu mu jël décision ba pare nag informé nit ñi leen ah man ko def naa nangam ak nangam ak nangam te nangam ak nangam moo tax ma def ko te a ñàkk moo tax dañuy Eh, amir bi su fekkee mën naa am ñoo xam ne duñ ko sori ci ay jamono eh, jamono yu nekk am ñoo xam ne su leen bëggee jot mën na leen a jot ci urgent yu gaaw yooyu donte da leen di woo téléphone sax ne leen maa ngi jël décision mu yëgal leen ko su ko defee suñu waxee mu ne ah defoon naa nangam ak nangam bi te nangam moo ko waral loolu sax moo tax woo naa diw ak diw yëgal leen ko mais su mbooloo mi liggéeywul noonu rek mën naa dem ba bloqué wu ci kaw ne il faut ñu def am ndaje mu mag a mag door mën a jàll mais su dul loolu war na man a am ay yombal yoo xam ne ginnaaw ci intérêt mbooloo mi lay dellu ci intérêt l'islam lay dellu war nañ koo mën a may nag mu am sañ-sañu léeg-léeg am yoo xam ne dana jël décision def ko ba pare yëgal leen ko ñu jël benn compte yam ci incha allah. dañuy sant docteur di ko ñaanal yàlla dana compensation économique marché maanaam ci wàllu liggéey liggéey bi ñuy def est-ce que lu mel ne jigéen ñi nga xamante ne ñooy saytu mbooloo ndax ñuy def lu mel ne ay renforcement de capacité ay séminaires yoo xamante ne ni ñiy jiite ñoom lañ koy defal pour ñoom tamit bu ñu paree ñu defal formation mbooloo ci biir mbooloo ñuy formewaat ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen suuf parce que dafa am jëf yoo xamante ne ni jigéen ñi jullit yi yaakaar naa ne ñoom seen taxawaay war nga feeñ ko surtout lu bëri loo xamante ne nii système d'actualité ak yooyu yoo xam ne nekkul ne dañuy dem di participer ci ay débat rek pour contourner wala daanakaante mais ñu am ay leeral yoo xamante ne ak taxawaay bu am solo boo xam ne war nañ ko taxaw jigéen jullit yi war ko taxaw tey ci question yu bëri lu mel ne ay parité lu mel ne ay décision ak ay yeneen ak yeneen système d'actualité yooyu foofu noonu laa doon la am lan la war a xew ci loolu. waaw alhamdulilah doon na liggéey boo xam ne liggéey bu bu mag a mag la. ndax euh, lu jëm ci wàllu jigéen lu bare bare loo xam ne noonu lislaam moom lañ bëgg a jàllale ci ñoom lañ koy jaarale te it ku gën ci koo xam ne ku mën a wax ak public bi la ngir mën a wax liy dëgg ci lislaam jigéen ñi ñoom ñoo ko gën a mënal seen bopp ndax su fekkee ne góor moo taxaw di expliqué wala yu mel noonu mën naa wax ba àggal ñu ne ak ah, kooku daal benn ustaas la boo xam ne nee na nangam ak nangam ak nangam mais bu dee jigéen comme ñoom jàng comme liñ jàng ba noppi nekk nag ci diineem mën na expliquer ci seen kanam te yàlla mbay ko ci fasaaxa ak waxin loo xam ne mën naa wax ba lim bëgg a wax àgg ci nit ñi kooku ab liggéey la boo xam ne bu am njariñ la foofu donte li doon gën li doon gën ci liggéey yu mel nii mooy war a mën a dem ba am benn journal wala magazine boo xam ne jigéen ñi ñoo koy bind ñoom ci seen jëmmi bopp muy àgg fu nekk nga xam ne seeni thème d'actualité bopp moo ci nekk yoo xam yaa koy bind réalisé ko journal boobu mën naa dem ba siiw ba àgg ci su génnee suy génn sax nit ñi dañ koy xaar kañ lay génn kon lu mel noonu lu ma a bàyyi xel la te it ay ay capacité bi yoo xam ne yu ko yu ko mën bu baax a baax la xëy na moyens yi rek mais luñ ci programme lu nekk rek mën naa jàll ci yu mel noonu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad loolu lii moom. comme jamono liggéey bi ci wax yëpp am na solo waaye dañuy jàpp ne te organisé wu ñu wax ne forage bi lu dégg daanaka day jafe lool. te defe naa ne loolu la ñuy dund nii ndax soxla woon na ay laaj lool ci jëm ci wàll naka la ñuy defaraatee ci liggéey ba projet la ñuy wax yëpp ñu ko taxawal ndax ni ñu demee nii. bu ñu ko continué ci wàllu tardé ak yéexal. maanaam tamit bu fekkee ne am na waaw dëgg la. comportement yi moom ak itte ji moom moom man Sénégal sax lay wax du wax jigéen ñi même góor ñi fii ci Sénégal bu dee da nga génn ci bitti gis ñi nga xam ne dañuy liggéeyal lislaam ni ñuy liggéeyee nga dellusiwaat fii ci Sénégal xool moo xam ci cadre góor ñi la wala jigéen ñi waaye da ngay rus te yow da dem foofu participer ci dara ñëpp dañuy ñëw sax di la laaj parce que jàpp nañ ne Sénégal passé nañ foofu bu yàgg yow mi xam li nga xam na xam nga ne ñii di ñëw di wut ci yow explication yow ñoo la ram ñoo leen raw situation ba ngeen nekk nekkuñu foofu moo tax laaj na leen vraiment daal ci ci doxiin bi jigéen ñee góor ñi ñëpp ñi gën a sensibiliser seen bopp ci liggéeyu lislaam ak mu jaral leen sa yitte bopp teew na boo xam ne xam nga ni lii yaa moom sa intérêt sax mën na cee faat mu jaral la nga jóg bàyyi ko bisub tey boo xam ne lislaam nga ko may mu jaral la dugg fii génn fii def nii def naa nangam kenn ku nekk loolu mën nga ci liggéeyal lislaam loo xam ne mën nga ci am ci tuyaaba loo xam ne lu baree bari la loo xam ne mën naa dem ba gën gëm li nga doon dabu sax ci intérêt yoo xam ne intérêt àdduna la kon loolu faw yëg-yëg boobu ñu fexe ba mu dund ci sunu biir ndax mu ndax mu mën a dox am na ay dëkk yoo xam ne boo fa demee tey jigéen ñi ñoom ñoo gën a organisé bu sax góor ñi ñoo leen dàq liggéey dañuy roy sax ci ñoom ci ay bunt yu bare bare bare kon loolu lu mat xel la góor ñi yëpp war leen a jàppale ci loolu bañ a nekk gàllankoor ci liggéey bi nga xam ne jigéen ñi bëgg nañ koo liggéey ci lu mel noonu. wasalaam waxtu fonk waxtu moom dafa doon moom itam problème boo xam ne bu ma te bàyyi xel la parce que joxe ab rendez mu jot nga ñëw ci waxtu wi nga waxoon loolu ci diine ji ci la bokk ci diine ji ci la bokk ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim. melokaani naafiq daf cee boole koo xam ne bu joxee di vous daf koy fausser kon yow mi ne da ngaa bëgg a ñëw onze heures wala da ngaa bëgg a ñëw dix heures yekk ba midi nga door a ñëw kon kooku def nga ñëw te mag a mag a te it tardé dafay indi ay njaaxum bare bare bi ci ëpp mooy waxtaan wi nga ñëw fekk ñi koy waxtaan te xamoo fu mu tàmbalee xamoo fu mu yem doo ci jariñ da ngay ñëw rek fekkee naa fa nangam ak nangam ak nangam wuute naa ak su fekkee da ngaa fekk fa mu tàmbalee ba fi mu yem am na benn waay boo xam ne muy nettali lu xaw a doy waar ci ci ci réewi tubaab yi la dafa am benn cérémonie benn euh, labbe boo xam ne dañ ko affecté woon ci dëkk ba mu jeexal fa di leen tàggu war a war a dem ñi joxe rendez-vous boo xam ne dañ ne woon dix lañ war a tàmbali liggéey bi meeru dëkk bi ñu invité ko mu war a ñëw moo war a jiite sax jotaay bi biñ toogee ba dix heures te ñëwut ñu xaar ko trente minutes dikkul cérémonie bi tàmbali labbe bi bi mu tàmbalee di leen di leen wax daf ne mi ngi sant waa dëkk bi waaye nag teewul danaa leen wax ne dëkk bi bi ma fii door a ñëw tuuti ma dem ndax ñaaw njort ci yéen li ko waraloo it lii la xam nga ñoom am nañ jataay yoo xam ne ci tuub si day ñëw toog bi reconnaître naan maa defoon nangam maa defoon nangam mu ne ki jëkk a toog fi man bi ma fi ñëwee ki jëkk a toog ci man dafa ne ma dafa violé koo xam ne ñoo bokk benn bàyyi sàcc na oto papaam jaay ko fi nga xam ne fa lañ ko yebaloon mu dafa jàngale dóor na fa ab xale ba mu dee mu ne bi ma tuddalee yooyu nag ma ne bii dëkk moom dëkk boo xam ne da nga ne cëpp rek ki nga jëkk a dajal mu limal la yooyu loolu taxoon na ma di si bëgg a jóge waaye nag gannaaw bi ma fi yàggee dem naa ba gis ne borom yi jikko ngeen wax ay waxam bi mu demee ba kàddoom jeex maire bi doon xaar agsi biñ ñëwee biñ ko joxee parole li jëkk wax mooy man maa ngi sant labbe bi ndax yàlla dogal na eh, bi ñu ko fi affecté man maay ki jëkk toog ci kanamam di tuub kon njaaxum yi waa ji doon wax yépp ndekete moom moo ko doon def ak tardeem ñàkk a jataay bi moo tax mu wax loolu mais su fekkoon ne toogoon na fi jamono yi làmbe bi wax loolu buñ ko joxe parole leneen lay wax lu dul di wax ne man naa ko fi jëkkër kon loolu tax na tardé ab jataay ak waxtaan doon na loo xam ne dafay lor ànd ak ne lu mat a bàyyi xel la nit ki euh, ci wàllu diineem heure boo xam ne jox nañ ko ko war na ko kon os kon ñu yem ko waaw rek na si waaw incha allah alhamdulilah ndaje mi nga xam ne moom la mbokk yi di def euh, dimanche bii di ñëw bii di ñëw wala beneen bi sax bi ci tegu le six waaw bii ñëw mooy suba bi ci teguwaat mbokki sunna yi nekk Sénégal ñoom ñooy def ndaje moomu ci stade bu Amadou Barry euh, li ko waral it mooy ay déclaration ak i leeral yoo xam ne dem nañ ba àgg ci étape boo xam ne ñëpp maase nañ yëg ne liggéeyu sunna laaj nañu leeralal ko nit ñi ak public bi bañ xam ñii ñooy ñan ak ci lan lañ nekk ndax liñ koy waxee boo présenté wu sa bopp nit ñi ñoo lay présenté te buñ la présenté leneen la ñuy wax ci yow lu bokk ak sa dëgg-dëgg kon explique ji dëgg-dëgg mooy loolu moo ko tax a jóg ndax actualité lañ toll boo xam ne laajatul noppi rek nekk sa bopp di liggéey ñii wax ne kii mooy jiw sangam kii nii la mel ñii lii lañ gëm nee la lañ mel kon ñu taxaw ne ci kanam mbooloo mi ne leen nun lii leen gëm ci lii leen nekk sunu doxin mooy nangam ak nangam ak nangam ak nangam ku ni jàpp ci loolu nga ni jàpp ku ni bàyyi ci loolu nga ni bàyyi loolu moo tax liggéey boobu jóg jàpp naa ne liggéey bu tuuti te itam dañoo bëgg teewaay lu yaatu lool itam ba ñu xam ne ñu bare bari ñu koy waxee jàpp ne nii ñetti nit la ak ñeent ak wala gone yi rek ñoo ci nekk ñu xam ne ëpp na loolu wa la alayhi wa sallam